fay fekk ñi ngi fay dajal xamoo leen le plus souvent dañuy àll bi dañuy wala ñu rey leen bu ñu bëggee suñu Casamance jëm kanam te mën na ne parce que li am comme potentiel kenn amu ko Sénégal mm-hmm. waaye nañ juboo waaw léegi à 100 jours la sa mentor Abdoulaye Wade waxoon def koy réglé dem nañ 12 ans nga nekk ci dëkk ba nekk fa ndaw lim la waxoon dara amu ci nan nga ko gisee nga wax réellement nan nga jàngate loolu. waaw loolu yéene la rek yéene la xam nga nit Euh, ci yéene nga koy teg waaw toog ne euh, maa ñaan suñu borom mu dimbal ma fi lekk euh, durant cent jours ma réglé tel problème te man lépp lu ma war comme mécanisme comme kon xam nga nag xam nga nag gouverner aussi du ay yéene. waa mais ma gouverner vision la vision xam nga vision c' est un peu aléatoire. ne woon na dëgg te yàlla tax ñun mën nga jóg ne lii laa bëgg a def créer toutes les conditions mu am yeneen contingences yu entré en jeu li nga bëggoon def <laughs> bañ a président de la république ñëpp xam nañ ne. bu doon moom rek la bu doon moom rek problème bi réglé na yàgg na. waaw ah, kon léegi lan la bu dee moom rek la te alors que moom c'est le président de la République. waaw maa ngi ñëw parce que moom dafay doy am vision globale. waaw wut ay moyens. pour mettre en œuvre cette vision là. non da nga bu doon moom rek la moom rek lan moo ci lan la. waaw ñan ñoo ci rax léegi. may ma rek parce que gis a Casamance yàlla dafa dogal mu am mu doon benn enjeu économique pour certains. nan la ko nekkee. am na ñuy dundee Casamance expliqué ma comment am dund si crise bi. mais nan parce que loolu dama koy dégg mënu ko comprendre quoi non en tant que jeune vraiment engagé aussi booy wax ak nit ñi nga wax leen. la Pape am na ñuy dund ci crise bi. loolu nit ñi dañ koy dégg te mënuñu xam. ñooñu nan la ñuy ci crise bi. Pape waaw. li ma la wax dañ. waaw gis nga. voilà c'est ça à une reprise. waaw président envoyé nañu nit Gambie envoyé nañu nit Guinée pour waxtaan ak autorité yooyu. waaw parce que mën na am. autour de cette frontière mu am ñu am ay intérêt direct dans ce conflit en am na ñu fa ne am ay intérêt pécuniaire dans ce conflit là parce que le fait de ma lay yebal di la entretenir di la encadrer di la yónni pour nga dem waxtaan ak ki nal tudd les maquisards pour dem waxtaan ak chef rebelle mais ça peut être comment dirais euh, un bon truc commercial pour certains les chefs rebelles aussi ils trouvent le compte dans ça il trouve le compte dans le parce que ñi ñuy braqué seen i alal ñoom lañ koy jox dañu installé comme ay roi nekk à l'aise donc il faut que ku nekk élevé wu surtout ñi nga xamante ne dañ jox moyen pour ñu yóbbul ko les éléments du mouvement wala dañ leen jox moyen pour jàppale nan tudd pour pour pour pour pour travailler à à amener la paix il faut que ñooñu ñu am benn hauteur sino dañuy jiital nan tudd seen i bopp dañuy encouragé conflit bi am tout en sachant que a Euh, euh, dans le cadre de la gestion du conflit euh, euh, de faire des sacrifices à tout point de vue maintenant ñi ñu fay yebal bu dee amuñu hauteur amuñu yërmande seen bopp leen tax a jóg le plus souvent da gis ñu ne yebal nañ kii on a échoué yebal nañ kii il a échoué yebal nañ kii kii dem na fi ba léegi problème mënu réglé pourtant je considère tey bu ñu toogoon ñun waa Casamance d'abord on la mesure de s'appeler ñu xool ci bët waxante dëgg mun nam amoon na avis euh, mu am une situation de calme. Mm-hmm. mais du côté politique moom da gis ni échec def ci am. du côté politique euh, échec bu dee échec mooy. mooy bi nga expliqué bu dee échec mooy bi léegi problème bi réglé wul. Mm-hmm. ah je considère que échec la. Mm-hmm. mais reconnaissons que l'État sénégalais à une reprise a insisté pour qu'on aille vers euh, qui des dialogues pour qu'on trouve des solutions. te état sénégalais dem na ba créer un fonds spécial Casace pour retirer les maquisards euh, di di di bois jox leen insérer leen socialement par de petits projets mais. mais tey li ñu gis presque moo gën a graaw kenn su ko gis euh, cantonnement yi la ñuy dugg toj ko jël gendarmerie ak militaire yi yóbbu kenn du xam fan la ñu nekk loolu loolu damay jàpp ne tamit du lu lu lu bees amul lu ñu fi deful ah. mais. damay lancer un autre appel à l'autorité sénégalaise nañu renforcer l'armée sénégalaise ah mettre leen dans une situation de confiance euh, parce que ñi nekk si àll bi booy dem jigéen sot tu fier de tu fier de ay jàmbaar lañ kon ñooñu nañ leen renforcer ay gendarmerie ak deux trois éléments mënatul ne biir Casamance na doon ay kii ay ay ay ay cadre yu peuplé de force de sécurité mm-hmm. foog naa loolu tamit lu am solo la. d'accord wàllu Casamance bëggoon naa ñu gën ci sori waaye waxtu bi te dama bëgg ñu soobu tuuti ci wàllu actualité eh, Malick Noël Seck président de la République gracié na ko ñu bari jàpp ni eh, gracié na ko mais amul sens parce que koo xam ni presque à un mois la war a génn kaso et puis voilà donc ban sens ban njëriñ la am eh, ñu ñu gracié ko noonu nan nga ko gisee. waaw amul sens day wane ne rek amul sens ñu koy wax rek mais Malick intérieurement boo ko laaj am na <laughs> quand même la liberté amul ko bañ amul ko bañ même ba dee resté un mois ou quatre jours ah bu ko libéré avant <laughs> Malick intérieurement est fier de ça maintenant politique nag moo tax ku nekk euh, di commenter nu ko neexee di interpréter nu ko neexee di wax nu ko neexee mais président de la république euh, dafa poser un signal fort poser un signal fort pour wane moom c'est un homme de dialogue dans une république am na fu ñu toll xëccoo bi bëri xeex bi bëri yenn yi bëri yow président ngay patriarche di charge ah, sa posture de président mun na laa may nga ne ah pour ñu dépasser débat bi nañ ko doxalee nii foog naa opposition war na comprendre ne cet homme est un homme de paix un de dialogue démocratie nag ñëpp am nañu ne Wade au Sénégal c'est le principal artisan 26 ans opposition jaayante suba ngoon bu dëgg ba de ba Sénégal am yenn acquis démocratique yi mais président de la République bu mënee gracier Malick Noël Seck pour calmer les ardeurs des uns et des autres pour prouver aux autres qu'il est dans de bonnes dispositions je pense que l'opposition loolu moo jaaxal nit parce que lu jiitu mu koy gracier dafa yëkkati ay propos mu xamal ñëpp ne leen dootuñu may opposition bi ñuy génn ak seen ay nit te man aussi samay nit dootuñu génn xam nga loolu itam euh, ay kaddu yoo xam ni dafay indi violence la hmm. maanaam ñii bu ñu génnee dañuy génn ñu wane ni ëpp ñu ma doole loolu boo mu waxee sage la démocrate la ci président de la république ñu bari ñu dégg loolu mën nañu am doute ci say propos. non mënuñu am doute sama propos Sénégal kenn ëmpalewul ne waruñu si am benn sikk sàkk président c'est un démocrate. ah mais buy woote defante. may ma rek c'est un démocrate gis nga parti nag yow mun nga nekk au sommet du parti mu am ay instances yu bëri ay instances yu autonome si biir parti ñuy réguler seen affaire à leur manière jël ay di ko conduire à mais président du ne kenn damal xeex du kenn damal saaga du kenn damal taal demal dóor président en tant que garant de la constitution di autorité bi nga xamante ne moo war a assurer ñëpp un bien-être au nom de la constitution mën na ne fu ñu toll nii mayuma kenn def lii te muy dëgg yoona ko ko may muy sama parti muy opposant yi mais bu dee si état de droit lañ nekk opposant yi xam ne lii président di wax yoon la waruñu ñaxtu pour loolu parce que fu ñu toll nii le contexte est tel que nit ñi dañu war am raison garder xam ne Sénégal suñu Sénégal la boo déggee télé baa ngi ubbeeku wala ki yaa ngi entreprise am oto yaa ngi def ah parce que depuis dafa jàmm waaw bu ñu waree am raison garder Sénégal yaakaar naa yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bopp nguur gi kenn waru ci jiitu euh, te li ñu gis moom mooy yéen ay nit ñi bu ñu xoolee li xewoon ca mairie bu Barthélémy Diaz euh, ci seen loxo la jógee li koy wane mooy enquête yi ñi ngi ci woo ñëpp seen camp la bokk loolu nekk loo xam ni dafay wane ni yéen raison garder bi nga xam ni yaa ngi koy laaj ci nit ñi mu war a jiitu ci yéen nekkul ci yéen waaw man man ba léegi nee naa PRS en tout cas suñuy biir instant ñu ne diw demal xeex fii wala demal toj lii demal fii mosul am je suis responsable national ñaareel bi euh, aussi bu leen kenn warul nandulu euh, am sikk sàkka ne si biir part dam ñi nga xamante ne pour faire plaisir à leurs leaders ils sont de tout mais li may wax globalement mooy ñun suñu parti ne sont pas violents parce que du suñu biir benn instance maintenant maire Barthélémy Dias ñu ñu faut convoquer mais comme que a accusé il faut ñu convoquer leen comme que ñoom lañu saisir il faut ñu convoquer leen cela ne veut pas dire que suñu parti fonctionner noonu parce que Wade il n'est pas souvent responsable des di di des petits problèmes qui peut euh, survenir ici dans qui à l'angle là ici il n'est pas toujours responsable ça bu doon moom rek la yooyu problème du fi mais nag il faut ñu am raison garder bu ñu amul raison garder ñu bëgg a taal Sénégal xool mais raison rek koy wax ci parti yëpp rek tout le monde ba ci yéen seen camp tout le monde mhm. PDS je pense que le message est Wade du protéger benn délinquant du protéger benn malfaiteur du protéger yàqkat parce que Wade ah, en tout cas waru ko def lu mu bëgg en tout cas mooy Sénégal donne le meilleur pays au monde sur le plan de la pratique de l'exercice démocratique sur le plan des de la réalisation sur le plan du développement des hommes d'accord voilà monsieur Gaye ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay sant merci beaucoup Fabouli mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce euh, mu nekkoon vingt-neuvième euh, numéro bi tey ñu doon ci recevoir nag euh, Fabouli Gaye mooy président conseil régional bu Kolda jiite itam ndaw parti démocratique sénégalais nag ca Kolda ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. ci wuy bi nga xam ni wuy si na ko télévision Futur Média ci émission Faram Facce ñu leen jox daje incha allah mbokk yi ci beneen numéro Faram Facce ak télévision Futur Média jërë ngeen jëf. xaw ma alkaati ngeen xaw ma gendarme ngeen xaw ma lu ngeen doon. je vois que Abdoulaye Wade a tendance à s'amuser avec des choses qui sont importantes. vous avez constaté qu'à la place des militants nous sommes tombés sur un rideau de force de sécurité.